gis ñu am yaakaar ci ñoom c'est président Ousmane Sonko. la wax ni mais xool nga situation réew mi ni mu doxee fi mu ne nii journaliste yi yu mel ne yéen yéen a ngi daw fu nekk di fa jëlee ay information tey da ngeen daan toog pour ngeen fekk si nit këram sax problème la parce que balaa ngay ñëw pour fekk si imam Khalifa ci këram ñu ne Sonko génn na nga ne ah imam boo mënee ñëw studio ñu ñu enregistré la mi léegi économie réew mi. mu ngi ci Ousmane Sonko génn wax wala mu génn dox wala mu génn jëf xoola tey seen bracelet yi ñuy yeew nit ñi ci tànk yi bi bracelet Ousmane Sonko yi génnee yu mille francs yi ana yooyu suuluwul te yàllam ci jële c'est des millions et des millions Moustapha gis nga yàlla wune ne nangul ok moom Ousmane Sonko mi nga tudd sax Euh, tey xëy na ñu. Idrissa Seck nag. waaw ba da nga terminé si. Idrissa Seck nag pareegoo si Idi waaw Idrissa Seck nag. waroon na am ñi ñuy tuddee kilifa diine yu ko tontu. ci lan ci lan la wax. parce que ñàkkee na teggin jëm ci Tiwaawan ñàkkee na teggin jëm ci Abdoulaye Wade bi ma gën a métti nag mooy ba muy wax. te loolu loolu waru ko fi mu jaar ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al loolu waru ko. lan la wax. junior. dama nga dellu ci vidéo bi junior. di sàdd nag loolu waru ko fan la jaar ak Serigne Abdou. ñoom ñaar ah oui ci lu ñu xam te bu goree na ko wax du moroomam du respect muy taxaw junior mais na ko xamul turam te beneen bi ci des li muy wax ci ay sëñ Moussa Nawel ak yooyu est-ce que loolu c'est à vérifier parce que Serigne Moussa Nawel toll na foo xamante ni am na yoo xamante ni du ci dugg. ay foon ni kan mooy sa sëriñ Tiwaawan kan mooy sa sëriñ non c'est pas vrai amul gis nga nit politique yooyu dafa weesu bu safa xamu politique ban moo fee moo fi des mooy bi Sonko di def nañ ko ci dab mais daal da ngeen yaakaar Sonko limite daal moo baax mooy politique bu bu bees bi mooy euh, lépp daal euh, du moom mën na dara du moom mën na na dem lijjanti Thiès gee nan la koy récupérer na dem lijjanti Thiès ge wala mu ñaan rek président Macky Sall may ko rek mu génn topp medd ndakaaru yi. kon gars topp ko de. nañ génn na génn. <laughs> léegi damay revenir ci Sonko sama question bi waaw am na ñu doon wax ne am na benn plainte boo xam ne mi ngi waat ci boppam bu ba moytu dinañ ko convoquer du dara euh, mooy Frédéric Nappel kooku ne daf ko maanaam daal dafa mettre sa vie en danger yàq deram ci réseaux sociaux yi ñu am na yu bëri daal lu ko nar a toppee yoo xamante ne bu moytuwul Eh, ay bés yi di ñëw dinañ ko déglu mu doonaat encore beneen jafe-jafe naam génnagul ci mbiri Mame Mbaye Niang bi Moustapha kañ laa gis plateau lan laa la fooxoon Sonko eh, kéemtaanu yàlla la ayatun min ayatillah bu ñu ko nangoo noppalu waxuma ñeneen ñi def ñun nangu nañ ko xam nga lan mooy musiba bi ku ko nanguwul songal maanaam duñ ci am dam mais songal rek kooku xam nga di toogal wax naa la ko ca sa plateau bële xalima bi doon bind di rëdd ci destin wu Sonko wow na ko tooyatul yàlla pale na démb tey soog a ñëw ay dapeek ay nappel ak ay mambay ñaak ay ndaw saa keneen ku mënti doon mani dañu teg bal bi ci suuf te préparé deux mille vingt quatre bañ bañ bëri xalaatoo mu bañ a bokk mu bañ a bokk kon ko nar tere bokk yow yaay baña bokk kon ko nar tere bokk yow yaay bañ a bokk. Mm. ah loolu mbir yi Mame Mbaye Niang bi dem ñu dox sa plateau mujj woon naa fa balaa mm. may dem omra lan laa la fooxoon gis nga ko wala gisoo ko wax bi ma demee Màkka lan laa la wax biñ ne day xëy dem nangam nangam dugg na fii kenn mën la gis nga Moustapha dara gis nga Moustapha dinaa la waxal ne la Sonko dafa yàlla dafa dogal ci moom loo xamante ni eh, dafa nekk koo xamante ni ku neex a dimbale la te ku neex ñaanal la te ñi koy ñaanal ñi koy ñaanal ah, nit lañ ñoo xamante ni duñu lekk lu xaram duñu tëdd fu xaram du ñu seq ak nit lu xaram ñoom seen yitte yépp mooy dañuy seet lu gën lënkale seen diggante ak seen borom ñoo ñoo nekk ci gannaaw Sonko Sonko ay xarxafuux ak ay féticheur nekkuñu ci moom. Ah, yàlla nekk ci moom cumbukaayam dafa baax yàlla mais xam nga dama dem màkk mu woo ma mm-hmm. ñu jokkoo téléphone dimanche ci sama dem bi umra bi bi ñuy wax ma xamal ko ne ko maa ngi nii damay umra mais xam nga dafa wax wax bu yéeme daw yaram dafa dagg lu mu doon wax ne ah imaam de man ñeenaa la imaam man ñee naa la léeg-léeg kilifa fii ministre wala leneen wala nga ne ko maa ngi màgg ah bu ma fàtte ci ñaan mais kee daf ni ma imaam ñee naa la kon ñee naa la jooju baat bu gàtt la bu ëmb lu bari mooy ni su fekkoon ni xañuñu ma pour ma mën a génn Sénégal kon maa ngi màkkatal mu di umra moo tax mu ne ñeenaal beneen bi ci des ñeenaa la mooy diine dong ko ñor leneen ñoru ko yàlla dong ko ñor ak Seydina Muhammad ak kilifa yu tedd yu baax leneen ñoru ko leneen lu woo mën waxal Ousmane Sonko mooy ni da nga ko seddi ci gaalu xaj mais doo ko ca mos a fekk muy xab est-ce que yëg nga ni Macky Sall xam na kan mooy Ousmane Sonko. ci naka ci biir ak ci biti. minal umuri maa laa yu bayyan Moussa Ba loo bëgg wax foofu. Moussa Ba Macky président Macky Sall xam na kan mooy Ousmane Sonko. mais wax ñu kay nu mu nu mu ko xamee. xam na ko gis nañ entretien bi mu mujj def sax euh, waa ji mu koy posé question dana li ñuy def këram li am fépp la. waaw waaw xam nga looloo tax looloo tax man ak yoon day bàyyi yoon def liggéeyam. looloo tax ma ne la xam na kuy président Ousmane Sonko Moustapha état dafa am doole de état lu mu def ba ragal koo def wala mu def ko ragal rek ca dellu am na jàngat buñ ko tegal ci taabal bi boo xamante ni lu muy bàyyi xel la ay kër kon daal xalaat nga ne am nga ci daal takk daal man gis nga gis nga yii sax yii dama day day day sëñ Moussa pourtant ñu bëri dañuy tidd dañuy toog naan ah sama waa ji damay xalaat ñu téye ko wa man yatawakkal ala allah wax na ma ko ci sama ci sama eh, umra gi ay yoo xamante dafa yéeme te di la tuddal aaya bi fa mu nekk ci saar yoo xamante ni ci saar yi ca kaw la boo ko teg ñuy jóg naan allazi at'amahum min ju'in mais yooyu nañu may jàmm yaa may reetaan loo sax ngay waxal de yi yu kenn xamul gis nga nee na ayatul kursi bu Macky bi nga xamante ne Abdoulaye Wade waa xam nga loolu loolu mooy mooy li may wax rek toujours bugguma ci delluwaat na xoolaat communication ñun ayatul kursi yu Macky Sall yu jub ak yu Ablaye Wade yu jubul suñu yoon nekku kooku seen diggante ak seen borom la ay message bi mu ci bëgg a joxe naan ku gëm yàlla la ku wéetal yàlla la ak beneen message bi ci li ilaa fi xorey sin bëgg ci joxe ni moom conseiller na ko waa mais Idrissa Seck xanaa moo sut xam-xam ci Sénégal loo wax rek mu fëgg dana man man man man man boo waxee ma nga États-Unis ma nga nangam nangam man maa fay lii man maay lañ ma lañ ma doon fay. naan maa fi indi ceebu xaw ma yaasala xaw ma nuñ ko. astaghfirullah lazim non c'est n'importe quoi ah ñu dangay tiit sax. ak internet maa tax ñu lekk siam